waaw ci kaw loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi mun nañ ni ñoom ñëpp euh, dalal nañ leen fii ci suñu quartier général pour waxtaan ak ñoom biñ ñu ñëwee nag ku ci nekk dafa am benn charte boo xam ne dañ ko tegoon ni bépp candidat boo xam ne nangul nga li ñu def ci ci charte bi pare nañu pour ànd ak ak yow bi ñu fi ñëwee ki nga xam ne moom mooy Matar Diop. nekk koo xam ni yàgg na ci suñu biir nekkoon jeune comme ñun nekk ci marché bi di ñafee ñafe ñu ñëwee ñu ko proposé suñu charte mun nañ ni lépp li nga xam ni ay proposition la boo xam ni mouvement bi defoon na ko moom mooy seul candidat bi nga xam ni pare woon na pour ànd ak ñun ci proposition yooyu. moo tax bi nga xamee ni def na loolu dañu duggaat ci ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi xamal leen ni kat am na ndaw boo xam ni mi ngi tudd Makhtar Diop. te bokk ci ñi nga xam ne ñooy candidat wu conseil conseil départemental bi nekk jeune boo xam ne fii ci dëkk bi la yaroo fi la màggee ba toll ni mu toll lépp luy ndomba tànk bu mu takk fii ci dëkk bi la ko takkee ñu ni nag nañu pare pour jàppale ndaw loolu ndaxte loolu occasion la ci ñun ndaw yi nga xam ne ñoo nekk fii ci département bi parce que tamit dañu gis que ni képp kuy fal rek ndaw ñi ak jigéen ñi ñoom ñoo la loolu nag bi nga xamee ne gis nañ programme am wax dëgg yàlla mu am ci pàcc yu am solo yoo xam ne jagleel na ko ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi te mu bokk ci li nga xam ne ñun dañ koy xeex ci suñu mouvement moo loolu mooy li waral ñu pare pour ànd ak moom ci li nga xam ne moom mooy élection locale yi di ñëw incha allah dañuy campagne parce que ñun dañu nekk benn mouvement boo xam ne xaaruñu ci benn politicien que ngay génn sa alal di ñu jox pour ñu campagne la parce que la preuve bi ñu gisee élection présidentielle 2019 am na benn candidat boo xam ni bi muy fii Touba ay pancarte wala boog ay banderole yu mu yu mu mobiliser pour que ànd ak moom ci biir caravane am amu ko woon ñun ñoo génne suñu ay propre moyen pour jox ko moom mu campagne te ba mu fiy ñëw yaakaaroon na ne Touba mënu fi am carte dañ ko promettre woon ko ne xaw ma ban dëkk mais dëkk bii di Touba moom da koy gagné te effectivement noonu la fa demee te kenn mësul woon a xalaat ni dina gagné fii nga xam ne moom mooy Touba Mbacké te gis nañ ni ba nga xamee ne élection yi jàll na score bu écrasante la gagné ñi nga xam ne ñoom ñoom la doon xëccool te loolu yaakaar naa ni bu du question que dañuy jeter suñu bopp fleur mais nekk nañ mouvement bi nga xam ni mën naa ni à quatre-vingt-quinze pour cent ñun ñoo liggéey euh, victoire boobu nga xam ni coalition boobu amoon nañ ko fii ci Touba. Idriss Seck moo nekkoon IDI 2019 ñu amoon benn plateforme bu ñu tuddee woon I5 P 2019. voilà léegi problème problème yi mooy jeunesse bi ko sànq. Mhm. chômage bi. Mhm. Mhm. dëkk bi également. insécurité bi. Mhm. yooyu yëpp xam ñu koy dund. est-ce que réellement jàpp ngeen ni candidat bu baax di ngeen jàpp pour mën a relever défi bi. absolument parce que tamit bu ñu gisee li tax ñu ni dañuy fàttali à chaque fois askan leen wax ni leen. am na yenn wax yu politiciens yi wax bu ñu ci yóbbaale mooy que di wax ni euh, benn leader day nekk Dakar di tànnal ki ñu war a jiite fii ci suñu localité loolu faawu ñu bàyyi ci xel localité bi faawu ñi ñu jox post de responsabilité ñi nga xam ni dañuy nekk ñoo xam ne ñuy ñu xam jafe-jafe yi askan bi di dund lañu. mais bu ñu def jamais li nga xam ni moom la ñu politiciens yi di gëmal ni ay wax que ni bu ñu wotelee diw diw la ñu woteel diw bu ñu wotelee diw diw la ñu woteel élection locale la suñu localité bi la ñuy xool ñi nga xam ne ñoo koy jiite ñu tànn leen ci suñu biir parce que dañuy gis que ni dëkk yu bare bare dañuy jooy lool di wax ni dañu jël dañu leen transporter ay maire wala dañu leen transporter ainsi de suite ainsi de suite loolu la ñuy bañ nag mu agsi suñu département bi dañu dañu profité ci année bii ni jox ko le candidat Matar Diop wax dëgg yàlla mu nekk un plus jeune de conseil départemental de responsabilité yi nañ ko jox ndaw ñi. yéen da ngeen wax tout sauf l'opposition. non ñun amuñu tout sauf l'opposition amuñu tout sauf qui que ce soit le plus essentiel candidat la ñu am di ko défendre. te incha ni ñu wax ko waxee woon ci élection présidentielle ki nga xam ne moom la ñu doon jàppale mooy Idrissa Seck noonu la ñu koy waxee Matar Diop ni ko incha euh, jour élection yi ci ngoon moom mooy candidat bi nga xam ne moom mooy remporter élection yi. kooku moom ça c'est sûr